wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maulana muhammad ibn abdullahi salallahu alayhi wa ala alihi wa sahabihi wa man tabiahum bi ixsan ila yawmi ddin qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu alam islam bi yëpp fu waaye mën a nekk ci diaspora bi ñu lay nuyu di la ndokkeel di leen jaal suñu sëriñ bu tedd bi nit ku sell jóge ko ci ku sell xànd ak ku sell wàcc fu sell mooy soxna si nga xam ne bu ñu wóor dafay tey jamono ndax ku mel ne moom am na ci jamono xam naa dana jëfe lool ndax la tax ma wala ma mooy waajuram wu tedd wi di seexal islaam alaaj Ibrahim Ñas jaam yàlla boo xam ne yaakaar naa ne ku mel ne moom amut kon nag kooku képp ko meññee ci moom rawatina nga nekk jigéen goo xam ne nga nekk taawu Cheikh al Islam Alaaji Ibrahim Ñas ci jigéen bàyyi yëkkati ko teg ko ci loxol ko tedd Seydi Aline Cissé radiyallahu anhu nga xam mooy babul xadarati wax ko lan ko waxoon ci soxna su tedd si ne jox naa la jigéen de waa jigéen gu sell laa jox ci mboolem sell waay yëpp nag am na ko kooku bàyyi ñes ci moo garanti doomam mooy soxna Sayda Fatimatu Zahra nga xam ne nit la koo xam ne bi mu juddoo fi mu war a juddoo pare dañ ko jàngal alquran al karim gaaw ko mokkal lool ci ndawam jàng xam-xam bu bari ci jamono ndaw nga xam loolu rek doy na takk ci moom waaye loolu yëpp it wax dëgg yàlla du nekk lu jàmb ci moom ndax wax naa léegi ma ne ku ne kuy ñun cheikh al islam loolu rek doon tagg ci àdduna ak doon tagg ci àllaaxira kon soxna Fatimata Zahra ñu ngi koy jàlle àdduna bi yëpp duur mbaa mi ne ba ñoo ñoo ñàkk de aalamu islam bi yëpp a ñàkk ndax banqaas la bu rëy ci lislaam liggéey ci islaam liggéey bu rafet boo xam ne kenn du ko fàtteeti kon ñu ngi ko jàll ñëpp kenn ku nekk ci ñun nag mën nga ko jàll sa morom kon man maa ngi njëkkoo di profito di ko jàll àddina bi yëpp waa xusosiyen maa ngi koy xusosiyal nag waa tariqa Tijaan radiyallaahu anhu nga xam ne ku gëmoon ci mënoon Cheikh Ahmadou Tidiane la ku daan wasifa la fekkee ne ba tey ci géew xadara muy wasifa dana boore laasim suba ngoon daan def xadratu jumaa dëgg-dëgg kon soxna soo xam ne li ko mën a bakkee bëri ci lu rafet taaram yi ci lu rafet wax dëgg yàlla dana jafe lool ci jamono bu mel ni ñi jamono bi nekk tey nii ndaw su mel ni moom mm. ñu ngi ndokkeel encore waa faydatu tijaaniya waaye di jël nag suñu sang bu tedd bi Mawlana Cheikh Ibrahima Alioune Ibrahima Niass ñu ngi koy njëkk a jaal moom. di ko jaal njabootu seexal islam yëpp El ji Ibrahim muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw xam naa bañ ko nuyoo dañuy jiital nag xalifa bi Mawlana Cheikh Amadou At-Tidiane ñas ñu ngi ko koy jaal soxna su tedd sii di ko jaal ay rakam yu góor ak arkam yu jigéen di teg Seydi Mahi Ñas ñu ngi ko koy jàll moom itamit di ko jaal doom ba yëpp ci gàttal buñ limee dañuy juum mboolem ko bàyyi radlaw jur ju zahir bi ñu ngi la koy jaal muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw gannaaw loolu nag maa ngi koy jaal sama soppe sama xarit sama sëriñ sama am di jàmm jàmm yàlla bu sell jàmm bu baax jàmm bu ragal borom bi subhaanahu wa taala borom xam sell bi borom xam bu rafet bi a seydi cheikh ahmadou at tijaani si Alioune Cissé ñu gën koo xamee ci imaamul akbar ñu ngi koy jaal yaayam ju tëdd ji nga xam ne kenn ku nekk rek mën koo jaal sa morom waaye doy na rek ci moom soxna su tëdd soosu ñu wax ci moom lu tuuti rek waa gannaaw bu ñu ko jaalee aussi rakku imam bu tedd bi nga xam ne mooy porte-parole mbir de Cheikh Ibrahim a Seydi Mahi Aline Cissé porte ñu ngi la koy jaalu baax a Seyda Ndey Cissé waaye da ko jaal doomi Seyda Aline Seyda Seydi Aline Cissé yëpp di wax ne soxna si tedd si ku bëggoon na wax tey ci ay ngëneelam yaakaar naa da fi yàgg lool te du jeex nga ne bokk na ci rek wax naa ma ne bàyyee ko jur ngëneel la mokkal na alquran jamono ndawam ngëneel la amoon na xam-xam jamonoy ndawam te ki ko seedal xam mooy papam ju mat ji mooy Cheikh Ibrahima radiyallaahu moo ko loolu amoon na mbaax it pama seedal ci moom ak mbaax yu toll ni kenn mënut ko seet loru loolu waaye beneen ngëneel ñëwaat ci moom. baayam yëkkati ko teg ko ci loxol ko tedd Seydou Aline Cissé nga xam ne mooy baabul xadarati kooku yar ko ne sax ñoom ñaar nag la lay xamal na ñaari nuur ñu àndoon nuuru ala nuur buñ seetee tey doom yi yëpp ay imam lañ moom moo tax ma ne ndax bu ñu wërifee ku mel moom ci àddina ndax du yomb hmm, du yomb de ku mel ne moom yombut ndax boo seetee taawam a seydi imam Assane Cissé nga xam ne imam la boo xam ne ci jumaa Mawlana Cheikh Ibrahim jiit na ko ay xat yu bari wër na àddina bi yëpp comme maamam di tasaara diine l'islam di tasaare tariqa tijaaniya di tasaare feu de Mawlana Cheikh Ahmad radiyallahu anhu imam Assane moomu son société di si mooy yaayam moo ko jur gannaaw imam bi imam jiito xaat yëpp jooyoon nañ tey kan moo woon nekk imam mu Medina Cheikh Ibrahim ndax banqaas la woon bokk banqaas bu diis la woon waaye nag yàlla subhanahu wa taala la Baye waxoon rek aw jot ne xaqal li jabri kastri man Baye dama ñëw pu jàng dama dama yi bànqaas boobu bi mu demee mu damm lool Baye indi beneen bànqaas nag mu mel ni ndax dar dar bu su fa jóg imaam imaamul akbar Cheikh Tidiane Alioune Cissé tey wut na ko tey ci maqaam bu koy boobu nekk imaam bi na Cheikh Ibrahim yàqu fi dara defar lépp dana rafetat lépp gën a am taar jàkk jàng juma jàngay dund guddeeg bëccëg ñu ñaan ngay julli tusbaar takkusaan timis gee fajar fat wat julli yëpp ñu ngi ko fa jullee boole ko ak wasifa ya ak xadar jumaa ya dara yàquwut incha allah xam ko am ñaari imaam a ngi noonu waaye ku ne xam na as Seydi Mahi Ibrahim tamit Mahi Aline Cissé xam nga itam imaam la ndax boo seetee tey li muy jàngale tey ci àdduna bi mu ngi wër ci àdduna mooy tamit mu ngi tasaare xam-xam fu ne ci àdduna mu fay dem di fa utu maamam di fa ay ay frère di utu waa faylu yëpp mu ngi tasaare diin islam diin tasaare bu rafet kon ñu ngi koy ndokkeel bu baax di wax ne kon soxna soosu mu ngi noonu ñett ñi ma tudd ñëpp ay imaam lañ loolu lu jafe la lu jafe ci àdduna bi tey la jur ay doom doom yëpp nekk imaam wax dëgg yàlla loolu xusuusi la boo xam ne yàlla koy maye zalika fadlullahi yuti man sa wala sul fadlu azim kon ci boobu loolu la ñuy àddina bi yëpp di ko jàll nag waa Médina di wax ne kii nit la koo xam ne wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla mbax ci moom layam doy na rek ay bakk ci nga ne jullit la jullit la alquran moo ne yaa seen amunu ittaqullaa xaqa tuqaati wala tamatun illa wa antum muslimun kon dëgg-dëgg soxna si soxna soo xam ne ci tabia bi nii mazhar jigéen la waaye maanaam yëpp góor lay doon ndax baa mooy waxoon ne amal maqasidu fa asu aarifin ma kaana majzubin bi zaakal aarif waaye bal man baqaau badal fanaa'i wa salaka naxja rasulu xaq wa nafsu malak ansa war rajulun unzan aw zakaran bàyyi mu ne am na ci ay jigéen yoo xam ne jigéen lañ ci masar nii waaye man bàyyi képp ko ànd ak man dana ànd ak yow ci ay pays yoo xam ne soo fa xasee xam jeex fa des fa booy góor góor nga boo jigéen góor nga soxna Sine yaakaar naa ne kenn gënu ko woon na yéeg ci yàlla subhanahu wa taala kon ku baax la def na isra wal mihraj jaar na yàlla yëpp xam na ko xam ko ko seetal ko ci boppam kon kooku lim am tey ci nii ci moom ñu koy tuddee dëj <laughs> moom dëju na boppam bu yàgg yoon sax waxoon na ne mootoo xablaan tamut dee leen bala ngeen di dee dee bala ngay dee nag gis nañ ko xadis yàgg na fi waaye ci loxol Cheikh Ibrahim lañ ko fekk nga ñëw ci bàyyi nekkoon benn jaam yàlla bu ñu tuddee diw ak diw bàyyi ñëw jox la tarbiya nga sëgër pay bi këf la nga jeex ci yàlla nga dee ba amatul nekkatoo fi yàlla fi te yaa ngi nii te nekkatoo fi loolu mooy dee la bala nga ne dee kon moom dee woon dee googu ba yëg ni moom nekkatu yoo mosu fee nekk sa bay dee ku dund kon ñu ngi santaal bu baax ci soosu ndaw su su soosu jigéen jigéen ko mel nii ma ne suñ ko doon peese tey ci àdd di ko fee tey ci àddina bi dañ son lool pour gis ku mel ni moom kon ñàkk nañ ko baax ñàkk nañ ko sell ñàkk nañ borom xam ñàkk na borom lijaaba ñàkk nañ koo xam ne xel mu sell ci moom la yem amoon na xol bu rafet amoon na xol bu sell lool lool lool ci borom subhanahu wa taala kooku na boppam ci léppam kon nag dañ ko ñaar yàlla subhanahu wa taala te mënta ñàkk rek ñaan waaye li ko ñaan am na ci moom nitu aljana piir mu ngi noonu nitu aljana piir mu ngi noonu ku xool soxna si ba mu dee ak ba mu bañ abi bi dund yëpp nitu aljana mu ngi noonu ndaxte yén saa waxoon ci xadis mu ne man qaala laa ilaha illallah daxalal janna képp ku wax laa ilaha illallah danga dugg aljana te ku ne xam na soxna say wax na laa ilaha illallah ba tàyyi borom bi subhanahu wa taala wax na ne man qaala laa ilaha illallah daxala isni wa man daxala isni amina xiqaab képp ku wax laa ilaha illallah dunga sama tata te gudug sama tata won da nga mucc kon soxna daal dëgg-dëgg jigéen xur xëy naa ngoog jigéen gu sell ngoog borom xam-xam baa ngoog ku rafet kaa ku taaru kaa ngoog ku rafet jikko jàng noonu ku set ku sell ku am xam-xam day xamle ku bëgg yàlla ak bëgg yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam bëgg Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ku jeex ci jaam yu baax yi des ci ñoom guddi ak bëccëg léppam lii la woon kon kooku dem na waaye dafa des ñun daay man ndaxte œuvre yi mel ni ko liggéey ci àddina bi même boo dee deewuloo yaa ngi fi yàlla moo ko wax yàlla moo ne bu def mukk ne gars yi dee ci yoon yàlla ñoom dañoo dee mu jeex dee dañ ñu ko dem seen borom ya dund ko tey kon ñu ngi koy ndokel ñëpp di ko jaale ñëpp di ko jàll ñëpp nag en tant que taalibe Baye fu taalibe Baye mën a nekk muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ak muqaddam fu waay mën a nekk nekk rek ci alam islam bi nekk taalibe Cheikh Bara ñu ngi la koy jàll bu baax di ndokkal ñëpp ci loolu maa ngi ne ñëpp di leen ziar di leen ndokkeel wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.